ñu leen di fay nuyoo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi sant yàlla baax di julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mi toog toogaayub Serigne Touba yàlla dëpp ko kàttan dëpp ko wér te yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér kàddu yi nii bëgga a yëkkati nag kàddu yi la jëmale ko ci xew-xew ba nga xam ni ni nga ko waxee alhamdulilah ba nga ko tuddee rek borom yëre yu weexi ndax nan leen tuddee rek borom yëre yu weexi ndax ñoom kenn du leen tuddee ay taalibe sëñ tubaa ndax taalibe sëñ tubaa day tënk ci ndigal te ndigal loolu nu jëf sëriñ tubaa santaanewu ko doomi sëñ tubaa yi ko sëtu sëriñ tubaa yi santaanewuñ ko ndax sëñ tubaa danoo waxoon ni laa tafaalu say an bi xayri isni fal isnu sartun fi xabuli sëni kenn wërta def dara te teg ko ci ndigal te ndigal di kenn ko war a joxe ci yoon wi te mooy sëñ tubaa te musta joxe ndigal ni dem leen ca jumaa ja ngeen di tawaaf ca kaaba ga waaye nag sëriñ tubaa yàlla su borom may na ko kaaba ga siyaar si ko tuubaa rasulillahi sallallahu alayhi ñëw na ziar si ko Touba jibril alayhi salatu wasalaam ziar si na ko Touba kataballahu tabaraka wa taala anna baytallahi alharam tar'uhu almalaikatu ila Touba wa fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam maha amini wahillahi loolu nag mayuk Serigne Touba la mayuk Serigne Touba la jagleel la goo xam ni borom bi sant ala moo ko defal teewul nag li ko suñu borom di may jagle googu moom Serigne Touba teewut ci dundam Sidi Mahmoud ak ku ne wax Abdou Wuduut di ñaari shérif yoo xam ne ñu nga dëkkoon ca gànnaar sëñ Tuubaa jox na leen xaalis bu bari ñi dem ajali ko màkkatal mukarram kon loola sëriñ Serigne Touba ci dundam ca njaarim te lii ma wax ku dem ca Irwaa dim bu Cheikh Mouhamed Lamine Diop Dagana da nga ko ca fekk ku dem ca Minanul Baaqadim bu Serigne Basiru da nga ko ca fekk Serigne Bamba jox na Sidi Mahmoud ak Abdou Wuduut ci dundam ni dem leen màkkatal mukarram ngeen ajal ma waaye ku ne xam na ni Serigne Touba xaadim rasulillahi it ak njabootu boppam am na ca ñoo xam ni seenu dem màkk siiw na ñëpp yëg ko bokk na ca ñooñu sëñ Fallou Mbacke demug màkkaam siiw na sëñ Abdou Khadir Mbacke demug màkkaam siiw na waaye ku ne xam na ne Serigne Baara mi nga xam ni mooy sëtub Serigne Touba bi njëkk a doon xalifa génneel ma ci réew mi fii ci Sénégal képp loo dem màkka Serigne Baara mu Serigne Fallou ginnaa bi mu defee faratas ajam koo xam ne dañ naan lim bi nga dem màkkatal mu karam mat na ñeent fukki yoon. kooku kan moo ko gën a bëgg màkka ku gën a ko fonk rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaye sëñ Sidi Muxtaar Mbàkke mi nga xam ni moo topp sëñ baaramu sëñ fàllu ku ne xam na ni danaan jóge Touba ñëw ba Dakar këram gi ne asilem gunge ñi nga xam ne dañuy aji màkkatal mu karab ñaanal leen ñoo ñoo doog dem aji te kooku sëtub Serigne Touba la Serigne Abdou Samad mu Serigne Soaybu di sëtub sëriñ Touba ay millions lay jël aj gu ne jox ko ay nit ni dem leen ngeen defe seen faratas aj te ñooñu ma tudd ñii sëñ tubaa mooy seen waajur ñii ay sëtu sëñ tubaa lan kon lu sëñ tubaa defut doomi sëñ tubaa yi defuñu ko sëtu sëriñ tubaa yi defuñu ko ñi ko def moom danoo tuddoo sëriñ bi waaye bokkunu sëriñ bi nan leen tuddee borom yëre yu weexi rek ndax man mbir ma yàlla dogal na fa la ma fekk ca tuubaa ab kaar nu wàcc dëkkunu ca dëkk ba ci kaar nu wàcc biñ toll ci résidence xaadim rasul fa lan taxaw def seeni sàppe sol yu weex ñoom ñëpp ni pat noppi ku ñëw romb nga leen yor nga sa téléphone di leen xool ndax kenn xàmmeewu leen te it bu kenn tudd ab sëriñ di ko ci tooñ ndax man fekkee naa ko ñooñu tudd ñu fa tuddub sëriñ yoruñu fotub sëriñ ñoom kay ñoomi neen ñoo taxaw ba nu accès ak ña nga xam ne ñoom moom nanu àndal foofee ca ca ca wetu jumaa ja ñanu àndal ba leen laajee loo leen def seen kilifa yi ñoom dañuy tawaaf ku ko dégg da ngaa ree ca kaw loola nag ca la xëqante ba amee tàmbale ca résidence ba ñuy boxanteeg ak ñi nga xam ne ñoo war a saytu jumaa ba na police dikkee tas mbooloo ma kon ñoom seen yéene moo ñëwoon ngir def si tawaaf waaye dama la wax ne tawaaf googu ñu no def fan ko doon defee mujj ñu koo def te lan doon def kenn santu leen ko ñoom ñoo ko doon defee seen coobare bopp wala bëgg taasal yoonu murit te ñoom tuuti nanu ci li sëñ tubaa def ci lislaam ku ko jiima yëkkati da nga yëkkati waaye képp ku ko bëgg a taasal yow yaay taas waaye yoon wi moom du taas ba mukk ndax borom ñekk na ko te lem nekkoon lu leer naññ la wax naa ngeen dégg jëf naa ngeen gis bind naa bàyyi fi kon loolee na ko ñëpp xam ni daal borom yére yu weex yooyu taxaw nit dañuy tawaaf loola ñoom rek la engagé sëriñ bi santaane ko doomi sëriñ Tuubaa yi déwunu ca sët ya nekkunu ca kenn ku ne xam na yoonu murit pas-pas bi nu am ci màkkatal mu karam ak gi nu am ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Sëriñ Tuubaa ñu ko bëgg nag ba ni maay xaadim rasul nag ngir jëm jeex toog ci moom kon nan bàyyi xel ni infiltré yeeg toppale yeeg tuddoo sëriñ beet ndax nit ñi kenn moomu leen jamono moo toll foo xamante ni ku ne mën ngaa nekk ci say caaxaan tuddoo sëriñ bi waaye sëriñ moom lam nekkoon lu leer naññ la mooy nazaafatuhu kulli min alax yu taharat wa sunnatuhu insha rabbi ubayinu yàlla sellal la sama lépp ci caaxaan lépp lu ay fox wala lu nuru ay fox ña ma ci tudd bokk ma ca sama yéene leen rek la man sëñ Tuubaa mooy leer sura Seydina Muhammad salaa sala ba mu leer naññ asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu